tel appartenance ah, man luma njariñ xam nga yeen yow man la amal njariñ xam nga njariñ nak way sa way mbir buñ ko jaawale man buma ma la xolé man la fàllu butéel bi moma la gënal hmm. parce que butéel man na ci naan yow amu ma njariñ yow amu ma ben rendement man mais amane na Yo, peuple bi amelul lu njariñ ñom la engagé man yow ku nekk nak say mbir yow la engagé bëgg mu añ midi nga bëgg peuple midi lañ bëgg añ man 15 h la bëgg añ nañ waxante deug man man yow midi nga bëgg a añ hmm. man 15 h la bëgg a wala lo d'accord na d' ci man militant passif amaluma ñariñ BRTB ma ko ëppal ñariñ mais tu parles la sacralité humaine. li ngay wa waaw sama yoni wu ci. nitu passif amaluma njariñ. BRT bi ma ko ëppal ñariñ ci gejawai dugg géejawaay liggéeyi géejawaay liggéeyi militant passif nak mënu ma apporter dara lu dul yéene ma ma dem kaso kooku ban ñariñ la ma ah bon ah waaw. militant Pastef moom seen seen yéene ci man mooy ma dem kaso man bakkanam amulu ma importance gardé ko lijjanti wu ma ko su ma romboon fii militant Pastef noonu dañ naan non natistant une personne en danger lan la ñu wax <laughs> ma la romboon sax réglé man du ma réglé sax yow yaa ngi sukkuraat sama yónnewul ci yow parce que yow xam nga da nga maa déclaré ennemi ba pare man intéressé teewu ma sama yónnewul l'essentiel nag du ma la tooñ du ma la rey duma la jam du ma la xaaj sama yónnewul ci yow dama laa teg ni ku judduwut BRT bii moom ko gënal ci laay dugg di dem di ñëw TRT ma ko gënal te ñaari mbir sax terre bi sax mo wara a a Sénégal nit ku koy tal yow li ñepp bok sa yene bu jubon moy dang koy tal wa Pastef seen pexé bu jubon ci mois de mars père ak BRT mom dañ nan amone na fi daana am xé dañ ko bu yag mais am na xam duñu juum rek euh, fat leen te ñom seen yoon. nekk si euh, par erreur étant donné étant donné. am fekk ci bis ba tal leen xala yoy de kën tuddu leen ba Ousmane Sonko di dajalé nit ñi waxtaan sax tuddul ñaari xala yoy mooy biisu. Euh, yarax bi barki Serigne Saliou mel na ñoom xale yooyu daal duñ ay te xale yooyu xale yooyu leen gën fuuf ndax kenn xamul ëllëg lu ñuy doon xale nit yàlla la. Hmm. ba njëkk mii daal man gis nga yor arme bu amul kayit dañ koy tere. ñu ne loolu rek ci lañ yàpp ñu ne du ñàkk bànjaki dina soulever yéen miir ah dañoo bëgg téye bànjaki pour maanaam jàpp ñeneen. ah bu leen neexee. mais instant perquisition bi dafa nekk ko ñoom Farba Ngom euh, Farba Farba Farba Ngom dafa neen fa ah, euh, dafa neen fa perquisition yow léegi. Euh, tey rakku duudu ka defoon naa ci vidéo bu am solo et tant d'autres defoon naa ci hmm. ba ñu yóbboo bàññee ki kër Farba. Hmm. laa ne waa APR yi képp lu am looy nëbb sa kër génne ko ndax mën nañu utiliser booy bi pour dugg sa kër. mais loolu yoon la nëbb. Ah, waaw la ngeen di nëbbu su nekkee lu jub la ku am looy nëbbu laa wax Abdou ku ko amul nag yaa xam <laughs> damay alerter rek comme mën nañoo mën nga faa yor sa xaalis Abdou su nekkee ñoom ñu ngi jub jubbal jubbanti waaw d' accord xam nga fàllu tey yow mën ngaa yor sa xaalis nit fay fay la bor 20 millions ok 20 millions yi egsi nga war a xëy yóbbu ko banque ñu am éco bi rek gàddu booy bi ne dañuy def perquisition fekku sa kër yanu sa vingt millions doo perte balaa càkkay ma fagaru rek fagaru rek kuñ fi indil xaalis sax bu ko fanaanal sa kër à tout moment mën nañu eko yi gàddu booy bi ñëw <laughs> yow dañ laa jàpp arme bu amati këyit bëgg cee wër wër këri jàmbur yëpp loolu nag naan nañ ñu wax li ci biir tamit fàllu arme bi amati këyit léegi yow nee nga waa d'accord diw mag a ko jaay mais lu ci jar di la gàddu tayee kër fàllu hmm. bu subaa kër kër kër Cheikh Anta hmm. bu subaa kër Mamadou ah bu yàggee nag nit ñi nag seen xel tey ne lii lu mu doon mais kër Farba Ngom ba ñu fa duggee caméra yi leen filmé fu mu nekkoon. Hmm. fa bu dooni caméra di kenn du ko xam. alors Farba nag day màggatum kooka de <laughs> ci kii bi la ko roof ci plafond yi la ko sànni roof ko dafa am dafa am caméra yoo xam nii kubéer bii nii. ñoo gën a hmm. tuuti nii. Hmm. mooy yi ne woon Beauté moo gën a tuuti yi ah Abdou Abdou Abdou foofu Babacar Touré Mandiouck nee na dara nekk foofu dara nekk Sweet Beauté bay bay bay jaamur alors <laughs> mi nan exactement miru euh, ki nga xam nekk moo Jérôme bandiaki ak rebondissement yi nga xamni ni itam am na si euh, allant dans sens donc nag ki nga xam nekk moo Jérôme nak mi ngi blanci euh, tour yi nank par nank alors ñu dal di delluwaat foofu sa ko tribunal ba du côté de la régie justement Tafa ñu dal di ñew si